ak doomam Jibi juuf doomu Maguette juuf waaye mu wax Mansour mbay ni ko gën a mënoo dem na nga wax peex na wax mbooloo ma su ma yaatoo ci tuubaa yenn Touba fanaan fa sëriñ Saaliwu dalal ma sama doom ju baax ji di murit saadix moo tax ma am loolu loolu ne woon bu mu toogee alaaji Mansour Mbaye moo ma woo léegi ne nañ ko wax kon ñu déglu Cheikh Makhtar Diouf aouzu billahi min asheytaani bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala seydina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xaddimihi wa ummatihi wa sallama tasliman di sant yàlla bu wér di julli ci yonentam bu tedd bi di sant sëriñ Touba di sant sëñ Muntaxa Bachir mi sëñ tubaa ci kaw suuf te joxe ndigal li di fàttali baayam bu tedd ba sëñ saaliwu mbakke yal na sunu boroom dolli ay leeram te taas ñu ci barkeem te joxoon ko ci ndigal bi mu doon jëwriñ ko nekkal fii tey ba mu doon sëñ tubaa mi yeesalaat ndigal li di ñaanal nag sunu boroom di ñaanal ci sunu boroom sëñ Muntaxa yàgg fi lool te ko ak njabootu sëñ Tuubaa yépp ci seeni tur maa ngi ci tudd sëñ Fàllu Abdu Mbakke mii sunu imaam ci turam lay yóbbaale kilifa diine yépp yi fi teew moom it ñi ngi koy gërëm di ko sant bu baax sëñ Muntaxa moo ñu ko tànnaloon ba tey mu doon imaamu raatib tuuba di nuyu mbooleem ñu ñu bokkal lislaam te seeni tur ma koy jaarale ci sëñ Ablaye Thiaw Laye mi nga mi xalif général des layan te ñu koy def fii ci wetam di sant Cheikh Bass Abdou Khadar mii nga xam ne moo fi teewal ku tedd ki tey loxom ndaw lu ne dara jay ku ko yónni lay teewe moom nag day sama xarit di sama sëriñ di sama confident may koy seet di waxtaan ak moom waxtaan yu sori te mu may dimbali maa ngi koy sant bu baax ci taxawaayam ci man maa ngi sant boroom réew mi président Macky Sall ndax tey barab bii bu melee nii ñu fay mën defee fii ak lii yëpp moom moo tax di ko ñaanal yàlla defal ko ak bëggam di gërëm tout son gouvernement gouvernement am yëpp di ko jaarale ci turu premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne di suñu mbokku taalibe maa ngi nuyu nag ñi fi teewal président te ki ko jiitee di Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé maire de Yoff ànd ak délégation bu takk ndax foofu moom danaa fa xaw a taxaw tuuti président dafa ni nañu xool délégation bi nuñ ko bëggee ñu defee ko noonu keroog mu fexe ba ñu recevoir ñu présidence ak ministre directeur de cabinet ak ministre Cheikh Mbacke Sakho bi nga xam ne mu ngi fi la ca war yépp mu def ko ñu ngi koy sant bu baax màggal gi nag foog ñu taxaw foofu président moom dañ koy ñaanal ndax bu lépp tegoo ci yoon moom la moo jox ndigal jëwriñam premier ministre mu jox ndigal ministre intérieur mu jox ndigal gouverneur ñu def ay CRD ay CDD yu dul jeex ñu defee ko fii defee ko gouvernance fépp ñuy xool ni yëf yi demee ndara manqué wul lépp lépp bu ñu yemoon foofu mu doy teewul mu recevoir ñu toppatoo ñu jox ñu ndimbal donc président dañ koy sant bu baax a baax a baax yéen ñëpp nag maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ko ñoo ngi sant ministre des finances Amadou Ba sama frère sama xarit moom itam. wax dëgg yàlla resevoir nañu toppatoo nañu te at bu jot noonu la daf fee nekkul bu fi nekkoon dana ñëw di sant sunu grand sëriñ de Dakar Ablaye Diop Makhtar daaw bëggoon na ñëw waaye yàlla dafa def mu amoon session assemblée mu am ngànt jotul ñëw waaye ren gis ngeen ko ñëw na ànd ak délégation bu takk di sant Mbackiou fay sunu jëwriñ ma mag damay wax toujours Mbackiou fay moom dama koy xoolee président Abdou Diouf ndax ba may gone laa koy gis muy ànd ak sama pap donc kooku moom dañ koy bereel cant te wax dëgg yàlla mi ngi sunu wet sëñ bi moo ko fi teg ñu ànd ak moom ci ginnaawam waaw jëf ñoo ngi sant ministre d'État Mbaye Ndiaye moom <laughs> sant ko sax wax bu yàqu la ndax moom ci kuréel gi la bokk dafay bokk ay réunion day tel moom dafa wàccee boppam moom moom nit ku ñépp mën nañ ko seetal ne xol bu rafet la am taalibi la waaw waaw démb rek moo ñëwoon teewe euh, ci vernissage bi ak ngontalu maam Cheikh Ibrahima Fall waaw di sant euh, maire Moussa Sy waaw le maire Moussa Sy moom moom am na ku ko fi wax léegi rek moom taalibi la Euh, day ñëw moom dafa considéré ci kuréel gi la bokk lu ne daf koy def proposé woon na sax dolliwaat ay tribune ak yeneen ak yeneen ak yeneen voilà donc euh, wax dëgg yàlla ñi ngi sant ñëpp mbooleem ku fi teew ci bis bi moo xam ak ku yéene ak ku am yéene teew moo xam góor la moo xam ndaw la moo xam jigéen la moo xam mag la ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñoo ngi sant nag maa ngi sant nag samay mbokku taalibe ñi nga xam ne laa bokkal kuréel gi waaw ndax ñoom ñoom vraiment lii bu melee nii ñoom ñoom ñoom la maa ngi beral cant nag soxna yi waaw ndax ñoom dañ maa jàppale lool rawatina nag soxna yi soxna soodo xuma mi nga xam ne moom moom mën naa wax ne ñayu xare la waaw waaw ak maam maam ami maxtaar waaw waaw di sant ñépp wax dëgg yàlla ci lool waaw sama xarit teew na fii président Pape Diop maag moom ñoo nekkoon ca ba déy ba mu promettre ma ne ma bis bi dinaa ñëw mu ne daaw sax bëggoon na ñëw woo na ma ay yoon di ma jox ay coup contribution wax dëgg yàlla euh, bëggoon wax tuuti rek ci bis bi li ko waral muy julli géej gi gis sëñ bu mag bi def ci géej gi ni ko Ablaye Mbaye peex rek waxoon bu doon bu doon ñun la piscine sax buñ ko defoon lab waaw waaye loolu li ko lal li li li lal li ko jiitu muy gëm gëm gi waaw xam ne waxtu julli gëm gëm yàlla waaw fit gi topp ci fit gi ndax mën ngaa gëm ba pare waaye fit gi des waaye fit gi mën a dem war a wàcc julli ci géej gi waaw jom gi ndax jom bi moo lal lool lépp waaw waaw gore gi gore bi ndax gore bi ba mu jullee ba noppi ba yéegaat tubaab yi sax nee ko yow de yow yaa gore ndax yow li nga def nii bu la neexoon dem waaye boobu dañoo xamul liggéey bi liggéey bi boobu liggéey bi moo jot waaw wax dëgg yàlla di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne daal ñun taalibe nañu wéy ci ndigal ñu wéy ci ndigal te mën nañ ko jaarale ci ki fi ne muy sëñ Muntaxa ñu ànd ak moom ci liggéey bi wéy ci ndigal ndax ndigal fam ñu jëme moo ñu fay jiitu allahumma salli ala sayyidina muhammad waaye cheikh bi nee nañ ko santal Serigne Cheikh Jëmb Fall waaye cheikh Alassane Sène ah, Abdoulaye Baye teew na ci barab bi ñëw na Alaaji Diouf international taalibe la ñëw na ma nga nee toog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 jaa